dañuy andi commission ba nga xamanteni ab commission d'examen des entreprises de presse lay doon manam ñom ñom ñoy ñom ñoy buum ñoy buum mi mhm. ñooy décider kan ban entreprise mo meuna doon entreprise bo xamanteni entreprise de presse lay doon ak ban moko ko mënul doon xam nga li yëpp man man suma ko dee suma ma ko dee jangat euh, ndak dama koy mhm. daldi Mamadou ifrakan Kane euh, ak ñi nga xamanteni moy association des éditeurs de presse nga xam mom moko jité dama koy jaajeufal bu baaxa baax ndax té mhm. nak limu wax dafa am solo té ci dafa am solo dafa jot nak ñu jakarlo ak ñi wan leen ne leen carrément ba ñuy dem di jàngi ji journalisme ak tey jii man su ma neexee su ma neexee man si j'ai les moyens mais ma teg sama entreprise de presse. Mhm. pourquoi pas je suis journaliste. parce que jàng nga ko am naa droit teg sama entreprise de presse. wa ku jàngul journalisme sax am droit respecter les normes teg entreprise de presse am. Mhm. waa léegi nag ñoom lan la ñu bëgg wax nañ fi ah, dañu ubbi woon benn plateforme boo xam ne dañuy dem pour enregistrer wu ci plateforme bi defe naa ñaar ñett ñeent ñoo si enregistré wu. mu paan paan xam nga dafa paan xam nga dañ ko bloqué on sait pas mais man dama jàpp ne loolu yëpp ndaat. Hmm? seenu tayeef la loolu lépp dañ ko def pour piéger presse bi loolu yëpp dañ ko def ngir buñ toogee ba mu neex leen ñu ne voilà oo nañ leen ñëwuñu ñi ñoo inscrire ñii la ñu kon ñii ñoo fi nekk ñi ñoo non non presse bi dofeewuñu noonu ba ñu defee loolu ñu ci bari dañoo dem wut seeni papier papier nii nii nii hmm. tée plateforme boo sa inscrire wut it am nga say papier yu leer nga toog si jàpp sa njàmbur ña ca des yóbbu nañ ko ca ministère ya loolu ministère ba loolu yëpp xam nga problème la ngir ëllëg bu ñu jugee duñ dal seen kaw waaye nag ñii kenn mënu leen teree dal si presse classique bi te presse classique bi nag gis nga fulla lii moom mbéjub kanam borom moo koy fajal boppam kon ñoom ñooy choisir daal kan moo war a ubbi entreprise de presse ak ku ko war a ubbi tey jii man li ma gis mooy xoqatal ak éliminer ñi nga xam ne peut-être jàpp nañu ay groupe de presse yoo xam ne nekkuñu seen faveur man je pense que loolu kese moom moo ëmb li nga xamante si bi moom la ñu bëgg a def trop nag c'est trop wax dëgg yàlla nag le gouvernement a son mot waaw dëgg la parce que ñoom ñoo ñu jiite mais nag vraiment du ñu nangu aussi à que ñu ñëw bëgg ñoo waxal ne kii moo war a nekk euh, kii moo war a am organe de presse kii warul am organe de presse kii non non là c'est trop vraiment là c'est trop et wax dëgg yàlla nag euh, éditeur de presse yeeg association de presse yeeg vraiment jot na nag lañ doon guerre nag guerre a ngi doog a jot hmm. guerre mu ngi doog a jot te gis nga bu ñu ñàkkee fayda tuuti wala ñu loo loxol tuuti billaay wallaay dinañu euh, éliminer ñi nga xamante ne moom mooy euh, les hmm. organes yi nga xam ne ànduñu ak ñoom classique yooyu ay professionnels ñoo fa nekk ñoo fa nekk nañ waxante dëgg nag gis nga ñoom ñii ak ñi ànd ak ñoom ci ay yenn groupe de presse yi ànd ak ñoom ña fa nekk boo ci génnee benn journaliste doone ñaar

ñoo ngi liggéey suñu liggéey normalement suñu dara manqué wul. Mm-hmm. du deug mm. kon tay ji buñu buñu len ñu nak ah éditeur yi nak wax deug yalla li mom hmm, ñun wax deug yalla euh, li ñu mën rek moy wax ak alerter mais tay ji amna lo loo yenn pay yi a ko mën def te ñi bo len len sétané nak ah presse bi dinañu dem au chômage de ñun ñëpp nak on est menacé parce que tay amna yo yoo entreprise yo xam buñ ko tejé wa chômage gi ñun fa lañ dem ñom dañoo ñëw pour pour pour pour pour xex chômage gi wala dañoo ñëw pour yok chômage gi man loolu moy sama problème nañu xol ñi nga xamante ne ñoo far ak ñom te duñ ay professionnel ñu tëj len te bay ñi nga xam ay professionnel ñu liggéey amna na xamné nak wax dëgg yalla bu yàggee nak fimu mu toll nii euh, journalu projet bi fi nekk ah télé projet bi hmm, ak ay chroniqueurs yi nga xamné xawma ay chroniqueurs lañ xawma luñu doon ñoy tok ci plateau yi di wax en faveur. du projet un jour ñu may laccé lan moy euh, métier chroniqueur. man ne am na ñoo non en fait dama di sing amna na ñoo xam ne dañoo journalisme xam lan moy journalisme am ci ay diplôme am ci benn niveau bi euh, dem spécialisé wu def li nga xam ne moo di ay pàcc pàcc nekk tey ay chroniqueur am na ñoo xam ne ànd ak journaliste moo leen def ay chroniqueur mhm. y a deux côtés et tey ñi nga xam ne nii dañoo nekk ay chroniqueur cent pour cent moom la ñuy nekk di saaga mu xamuñu li ñuy wax xamuñu dara alors que ñi nga xam ne ay ma yaama yaama neex lañ ñooñu ñoo nekk des vrais journalistes alors que fii nii Sénégal meilleure école de journalisme mu seet si la génne mhm. nekk deuxième meilleure meilleure école ak yeneen yi ci des mm-hmm. wante fii koo laaj say ay diplôme mu naan la xaaral tey ak suba boo ko ñemee ne ko doo journaliste te wéyal aca ma xaji journaliste yi nga xamante ne bi dañuy toog ci plateau yi ah, man lu ma gën a métti rek ci métier journaliste tey jii feuse mooy dàgg sant waxal de fa doon jëm si sax nag dàgg sant mënuñu li ñuy wax basé wuñu ko teguñu ko ci ay fait teguñu ko ci ay tex dañuy wax lu leen neex wax sa xalaat lañ nekkee ci plateau yi ba noppi di fat par parloo kenn xamul ay journaliste lañ kenn xamul lan la ñu doon ñoom daal l'essentiel mooy lu neex ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi loolu moo leen neex lu ñu mënti def lu baax la ñoom duñ def dara lu bon luñ def lu baax la donc ñooñu ñoo war a xoolaat seen bopp ñooñu noonu la ñu war a waxal waaye daal man seen commission d'examen des entreprises de presse gii wax dëgg yàlla luusa nga ja yaa anguille sous en tout cas dinañ ci tegal foofu sa baaraam ndaxte dinañ ci ñëwaat maxat yi ñu gis ne euh, média classique bi bu moytuwul euh, disparaître lay def ndaxte gis nañ liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy abaatre euh, dem nañ ci bloqué seeni contre ñu ne dee waaye fayum impôt ñuy raam di raam di raam ba tey ji ñu bëgg a dagg seeni tànk bàyyi leen nañu ñu nërmee lu benn yoon mooy li Feuz wax rek dañ leen piège bi ñu bi ñu def seen bopp yi lañu warul def parce que tey jii ni bu fekkente ne dañuy nekk di piège nit ñan ñooy liggéey ñan ñoy liggéey Feuz wax na ko sànq dañu bëgg dañ dañ né dañoo ñëw pour arrêter chômage bi mais man je trouve que ñom dañoo ñëw pour yokk chômage bi. Mm-hmm. c'est ça té lool mom vraiment warul ci réew. Mm-hmm. am na solo en tout cas euh, boo xoolee tey euh, milieu presse bi assainir ko yaa ngi koy wax sànq Feuz. am na solo mais aussi euh, def euh, kéemtalaay kat am na dëkk yoo xam ne journaliste yi la ñu gën a respecté mais boo gisee tey euh, Sénégal li fi nekk ndax mun nañu wax ne journaliste yi jox nañ leen respect ba ñu métti. joxuñ leen benn respect. Hmm. pourtant nag benn hmm. côté si yow téyel micro ak camera rek romb. Hmm. dañ lay teg foo xam ne mooy loolu. en tout cas euh, doy na waar aca feuse euh, ñu continuer ba tey euh, ci boobule milieu moom ñoom tey ñi nga xam ne ñoo di taskatu xabaar yi dinañ daal di àddu ndax aussi def guerre contre ñi nga xam ne ñoo fi nekk di gouvernement bees bi dina leen apporter ay solution ndax waruñu jéem a négocier aussi xam nga loo gis rek négociation def ci baax ñan ñooy négocier. mais les entreprises de presse les patrons les patrons. ñan la négocier Mais ñi ils sont stricts ñom ils sont strict les négociations dafa baax si lépp. xaaruñu négociation d'ailleurs ailleurs euh, wax la ko fi sànq plateforme bi fi ubbi won animu mayuñu sax ñëpp ñu inscrire mayuñu ñëpp ñu dem ci plateforme boobu def lañ fa wara def moo tax ñu ci entreprise ci bëri nee naa def seen papie euh, papier yañ leen laaj ak def ko ci enveloppe yóbbu ko minister ministre ministère ba parce que buñ ko defulee ñu xëy dal seen kaw ñe ñoom respecté wu norme yi leen jox te pourtant je sais pas ñoom ñoo ko tey parce que mënuñu teg seen plateforme gis nga mbir boo def day lerba ba pare mais seen plateforme bu dee pareegul déjà ñëw nañu fi ne seen projet pareegul plateforme bu leen leeree ne pareegul mais nañu xaar pare ñu sommes mais il faut y yëfu je sais pas man ne pas, comment mais en tout cas entreprise de presse nous am les mhm. associations de presse len ñu ngir ngeen ko mhm. ko gis nga presse quatrième pouvoir mhm. dafa am la doxé. il y a aussi manque de solidarité